alaikum wa Sénégal Je suis nuyu ku nekk Je man la soxna chargé des missions ministère finance Yaye Fall Ablaye Daoud Dial. Wow, Ablaye Sénégal. je suis du laam-laame au Sénégal Je xam nañu kan si je suis la paix la xam c'est un homme d'état qui a amul bruit il travaille sans bruit Il déggu ko suis ci détail

Ablaye buggul détail te du mës a def détail liggéey rek moo ko ñor te bu liggéey liggéey joti président liggéey rek moo ko ñor dara ñoru ko du liggéey kon nag ñun ñii département Podor ñu xam ko dëkk ak moom xam mooy kan xam jikkoom même Sénégal yi tey au niveau national xam nañu Ablaye Daoud lu dox si yooy mais nag soo nekkee nit koo xamante ni sa dëkk bi nga nekk yow doonoo fa dara tekki woo fa dara da bëgg a bëgg ñu xam la il faut nga dugg ci yii mais na xam ni Ablaye du moroomam ñun soxlawuñu ko sax moom ñun ki ko yónni dañuy soxla mu ñëw jàkkaarloo ñu même ki ko yónni Ablaye doolu jël du wax ak moom du moromam c'est un ministre d'état di liggéey liggéey moccee si wet président de la république président naw ko lool mu ànd ak président depuis démb tey soogay dikk fidèle loyal ci kanam président loolu ñëpp ko félicité tey ji ñun Fuuta jooy ñu dara ndax ñëpp xamoon nañu Fuuta nu mu meloon temps sengoor ba léegi temps Senghor ba tey ñëpp xam na Fuuta nu mu meloon Senghor Ablaye Wade Abdou Diouf Macky Sall Macky dafa ñëw ñu ngi koy sant di sant président de la république ndax daf ñu jël suñu doom ji di Ablaye Daw jël teg ko ci ministère yu baax te fu mu jaar bàyyi na fa ëpp empreinte fu mu jaar bàyyi na fa empreinte ñëpp xam nañ ko te Ablaye dafa set wet comme neige tilimul benn yoon kon kenn mënu ko tilimal Fuuta tey bu tawee da ngay génn normal ndax lan fan la jogee dem finance infra la jógee dem finance tey Fuuta boo duggee da ngay def nu la neexee loolu ñëpp teg nañ seen bët ba pare nag nit nit ku baax doon social ci ñëpp nag yemle nag ñëpp nag ñëpp la yemle amul kii amul kaa kon nag ñun du ñu may kenn un soi-disant comme Ablaye Timbo di bëgg a kumba di bëgg a bës du ñu may kenn muy jàkkaarloo suñu nit di ko wax quoi que ce soit Aliou Dembour honorable député Aliou Dembour yàgg lool si wet président de la république di di président conseil départemental de Ranérou loolu suñ la ko defee ya si tu es quelqu'un moo tax ñu des responsables politiques. di responsable politique euh, nit ñi ñoom Sénégal moo metti dégg-dégg te Aliou Dembourou nous xëy na utiliser terme bu dul mais ñun si xaal pulaar ñun ñu ñu riche pulaar nu mu riche pël nu mu kii mënoon utiliser beneen terme bu dul mais nekkul loo xamante ni lu grave la ba ñu koy garaawal eggul foofu mais nag su fekkente ni nit ki soo ko nee naaj baa ngi ni mun la gisuma la mënoo ci moom dara ku su ñu bëggee yàq il faut ñu jël interpréter ko nu mu demeewul ni mu ko waxee bu dee si ñun pulaar loolu si dégg-dégg bi ni ko déggee rek la mais nekkul terme bu bon nekkul terme bu bon mais nag euh, sénégalais moo mel noonu tey jii ñun ñu ñëpp ñoo bokk leeg baay fii président de la république amul xaj amul seen tukulóor bi séeréer bi joolaa bi manka bi ñëpp xaj nañ si gouvernement bi ñëpp xaj nañ ci Aliou Demba du nit ku bon nit ku baax la yaru tee dafa yarute tee nit ku baax la te nekkul tam nit fitna ku xool abla Daw jël du nit fitna mais nag Ablaye Kumba moom Ablaye Kumba moom xaw ma un moom fan la toj dama bëgg xam fan la toj ak ak moom mooy kan ak moom mooy kan bu muy engagé Ablaye Daw Diallo Ablaye nag am na ginnaaw ndax tey kartal ko gootal Podor yëpp moom lañu ñu ak Sénégal tey ak Sénégal man nag man nag sama wax du ci bëri Aliou Dembourou wax na dara mais barke Dembo Ndiaye Sonko dafa taxaw ne ancien président nan leen tiiree bal xanaa du ñu wax ci lool xanaa loolu la gën a doomu aadama ngeen ko ancien tiiree bal ñi nga xam mat na ne maa mat na ne papam xanaa wax jooju moo gën a bon nañu bàyyi li ñuy def sénégalais dañuy nekkee baaxul président mu ngi liggéey Sénégal ñëpp ngi jëm kanam nañu bàyyi nu ñu nekkee ñu bàyyi affaire ethnie bu ñuy sulli ethnie amu fii ñëpp a yem képp ethnie amu fii ñëpp yem képp si président waaw ñun yan mesure duñ ci jël pour euh, suñu ministre bi suñu cher ordinateur ñun mayuñu kenn ñun mayuñu kenn mayuñu kenn muy wax si si si si Ablaye Daoud man en tant que soxna si la lionne de Thillé Baboucar yaay faal Ablaye Daoud mayuma kenn muy wax sama leader xalaatuma ko sax ak koo munti doon ak noo munti tollu man dama lay engagé du la may fenn fooy waxee sama ministre ndax sama ministre dafa set comme neige dafa set wecc te limul benn yoon fu mu jaar bàyyi na fa empreinte te lu ñu neex la te baax si ñun lool waaw depuis Senghor ba léegi mos ñu am ministre bu mel nii c'est la première fois ñu am ministre comme Abdoulaye Daouda Diallo c'est la première fois sama baat ci kaw loolu Sénégal yëpp xam nañ ko nitu jàmm la nitu jàmm la amul xeex amul xuloo lu muy génn télé sax bëriwul